nga maam si di borom sañ-sañ la <laughs> ko borom sañ-sañ la yal yàlla barkeel ah man it wax dëgg yàlla wallahi azim ak bis bii ak waxtu bii may toog lu ma ko mës a keroog bi ma ñëwee ba fekk seet si ko fii ndax man comme dama ko liir ci daara ji liir liir pour firndeel li may wax xam-xam bi nga xam ne yàlla may na ko fii tubarkàlla waaye lu wér ci li ma liir te loolu maam la ci man te njabootu ji ma gën a jege incha allah taala ku ko déggit doo ko mën a dindi bokk na ci métier wàllu tailleur wàllu tailleur doon na ci yëngu ah, waaw waaw mag ñi fi nekk te xamoon ko it loolu bokk na ci métier boo xam ne yàlla mayen na ko lool moom te loolu góor gi lu mu bind la te daawul géej di jëflanteeg moom ci dundam ah seede seede ngi ni càngaay moo ko daan ñëw seede ngi ni te man mosuma fekkee loolu mu ne ko ah waxal ma déglu góor gi répété mu dem ba góor gi mokkal ko léegi nag maam Seydi daal koy óolu ne ko waaw Seydi li ma la waxoon dee ko jàngal sa waajur diw fu ci toll mu ne ko mokkal na ko kay mokkal na ko de am seydi ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko baax na mu ne ko nee ko moom na ma seet si góor gi nag bàyyi libaas daal di koy seeti bi mu ko seetee mu ne ko waaw maa yeboloon ndaw si mu ñëw foofu di ko jàngal baa teewlu nga ko mu ne ko xale bi de doon ñëw moom tax alhamdulilah mu ne ko waxal ma déglu góor gi wax mu kon maam si xam na ni góor gi mokkal na mu teg ko ne kon mu ngi koy waajal ba mu ko teewloo rek yàggatu fi léegi nag xam nga luy problème bi man sama problème moo doon li mu ko doon jàngal loolu comme gisuma ko ci téere bi paa bi bind ko lan la ma ñëw fii seet si ko ma nettali ko histoire bi yor téere bi nii wax bu pare waaw mun ma loolu de sa bàyyi bàyyi njuga maa toog wax mu bind ko mënuma man sama bàyyi sëy naa bi ma ko waxee ne ko góor gi mokkal na ko ba góor gi dem wax ko mu leer nee na da ko oo ba mu ñëw nee na mu jël loxoom bu tedd bi ko ci boppam alayhi salaatu wasalaam ne ko sëydi fàtteel sëydi fàtteel sëydi fàtteel nee na bu mu jógee xamatul ndax baala tàmbale wala xaawul xamatu ko mënu ma nag yow ko sob nga ndax boobu doyal na fii boobu fii mënoo maa ngi nii toog doyal naa fi sëg bu ma ko jàppoon bu ma ko jàppaatoon ba heure bi maa koy waxal sama bopp <laughs> dem barkeelu ji <laughs> ah? kon yal na yàlla barkel suñ borom nee na wa inna aleykum wékk naa seen kaw la na ñoo xam ni dal leen ottu ñooñu ñooy ñan kiraaman kiraaman ñu tedd nañu waaye kaatibiina way bindakat nañu ñoom ñaar ñooñu nag ya'lamuna xam nañu maa lépp loo xam ni taf'aluna yeneen koy def waaw fii nag sang bi daal di ci xutba bi wa kaatibal amali bindkat ñi nga xam ne ñooy jëf yi wal xawli ak wax yi ñoom laa yaxfulaani nekk nekkuñu ñaar ñoo xam ne dañuy sàggane ci seen biir saa atan heure wala saasatan wala li nga xam ne mooy pepp moo tax suñu borom wax nii ëllëg inal abraara naka gaañ nga xam ne nin góorgóor si àdduna nekk ci catégorie gaañu baax ñi ñoom la fi naimin suñu borom nee na danaa leen tàbbeel ci ay xéewal waaye nag wa innal jaar kàccoor yi nga xam ni dañoo féttarlu woon ngir gëm yàlla ak toppale nga xam ni mooy ndiglay suñu borom la fi jaximin danaa leen tàbbeel sa fa nga xam ne mooy jaxim foofu nag yaslaw naha xal set nañ fa tàbbi kañ mu ne danañ fa tàbbi de yow ma diini bisum pénc ba bu ne bisum pénc rek sa xel dem ci maaliki yow mi diin wa maa deet ñoom sax bi na di way fàddu di way xaarijin di way génn anhaa ca foofu nga xam ni mooy safara sa moo tax question dafay laaj foofu xaalidina fiha abadan li nga doon jàng ku fa dugg rek danga nga fay sax daay man tappet ay dugg ak génnaat moom la kufaari oxlu màkk dañ wax naan moo ñun safara sax c'est pas la peine nañu def lu ñu neex xam nga yàlla dafa bëri yërmande xam naa dama ragal ni bu ñu dugalee safara bu ñu laqee quelque temps rek après daf ñu daal di bàyyi ñu daal di dem nag seeti gaa yi suñu borom ne leen déedéet da ngeen yëgul lu xew bu la laqee ba nga mel ni doom dóom xanaa war ngaa pare suñu borom ne ne déedéet bu ma laqee ba nga mel ni dóom dama lay tëggaat nga beesaat taq lépp delluwaat ba nga xam ne yaa ngi tàmbali di pour nooyi mun a paree gode dangay ngay delluwaat ci fii bi ci biir wa ma adraka xamaluma la yow yan ci alayhi salaam maa yow mi diin lan mooy bisum yow mi diini lan mooy taxawaay pénc ba su ma topp nag maa adraka xamaluma ba tey maa yow mi diini ana lan mooy bisum pénc ba mun a yow ma bis boobu ma lay wax laa tamliku nafsun li nafsin shay'an nee na amul benn bakken boo xam ni dana mënal moroomam dara foofu waaw moo tax ah ñun day dañuy sant de mam li maam sallallahu alayhi wasallam tasab bi ñu jox nañuy tasab julli tasab wird bu ñu jéema nan ay ñun ñu ay démb nañu gis nga yooyu ñun ay nitu démb nañu tasab bi sax moom daanaka jartu nga koy def ku la ko fi wax ku la ko fi wax bool ko ci topp xaalis kenn du ci doyal wa tuxibuna maala xubban jamal la alquran wax wa tuxibuna maala xubban jaman kasiran nee na alal moom du ngeen dañ yéen seen biir xool di ko gën a bëgg waaw firnde bi xool leen suñu suñu yaay yi xool leen suñu maam yi xool leen yéen suñu maam yi sa doom day nekk xoolal xoolal ñun suñu suñu suñu suñu yaay yi yow dangay liggéey am ay doom yu góor da lay jox xaalis de mais mairie ah faw ñu teg table xoolal li ma la table faw ñu teg ko dangay tabax sa kër air air nangam xoolal na nekk immeuble mais mais mairie bu màgget bi foo foo mu am lu mu jaay parce que fa sax suñun léeg-léeg nga nekk mais yaay xam nga yow waxal loo bëgg ñun ñu ngi nii dinañ la ko defal mu ne waa baax na de xoolal jox leen ko lu lu ngeen ko jox dina ko jël de. mais il faut mu jaayantu <laughs> il faut rek te gis nga li muy jaay soo xoolee ay dërëm ñaar dërëm yoo xam ni capital ba sax matul dix mille mais naka jaayantu rek moom seet <laughs> leen loolu rek kon fa ñu jëm ku nekk sa mbirum bopp doy na la moo tax moom dafa wàcc ak ñun alxuraan ba mu ndax naan ittaba'u man laa yasalukum ajran mu hum na boo gisee maam li maamu ne alayhi salaatu salaam ñëw leen ci wooteeb yàlla bi lu ngeen am nag jël leen waaye lu mu am man a génn nañ ko bokk keroog la wàccoog ñun nag wal amru bisum yowmal qiyaam mooy bin bi mbir bi nga xam ne mooy xew ci bis ba ak la cee xew ak atta yi ak digle bi ak jéggub siraat ak dugub àjjana ak mbugulu gaay ñi nga xam ne dañoo weddi ak ñi nga xam ne dañuy nekk la araaf ak ñi nga xam ni dañ fay nekk di poñanteeg seeni waajur ak lépp yow ma isin ci bis boobu lillaahi ñeel na yàlla saar bi foofu la jeexee suratul mutaffifiin mooy saar bi nga xam ni actuellement dafa xaw a compliqué waaye dinañ ci indi sara bu am solo pour ñuy def tafasir ñu bàyyi xel ak nattala bi suñu boroom dafa wax ni waylun kuurub mbugal lil mutaffifiina ñeel na ngaa ñi nga xam ni dañu ŋoobu suñ bàyyi daaw da baa dégg nga baat bi ŋoobu yow dangaa nay ba ŋoobu olof da koy faral di wax xam nga nit ki danay nay am na koo xam ne dafa nay am na koo xam ne daa nay pare bokk si dafa ŋoobu mooy koo xam ne bu lay jox dara en général am na lu mu ci rocc wala bu lay defal dara nga foog ne ak mbaax la fekk am na leneen luy dolleeku ci moom mais nag ñi daan def tafsir ñëpp dañ ko jëloon aay bi jox ko commerçant yi ku la koy jàngal xam nga lu mu lay wax comme borom bitig bi day jël balance xam nga balance yi mooy peesukaay yi xam nga am na ay poids yu ñu teg ñéegi nag ñoom bu ñu demee jënd ko pare ci suuf am na benn mbir boo xam ne bu ñu ko wàccee loolu lay jaay du mat waaye suñu maam njëkk yi ak suñu bàyyi njëkk yi. ñoom seen jamono boobu peesukaay moo fi gënoon am doole ca marché ya ca dugub ak ceeb looloo fi ëppoon léegi nan ngay defee xiyaas si jamono ji lii xam nga noo defee xiyaas actuellement gis nga danga koy xool ci suñu téléphones yi téléphones yi téléphones yi léeg nga jëkk bi si yàgg gis benn message message boo xam ni waa kër ga nga xam ne ñoo ko géré ñoom dañ naan lan weer bu jot dinaa lekk ci yow cent franc waaye bu la neexul nga wax gis nga soo jugul dugg ci foofu jees nangam nangam dindi ko ñoom ñu ngi dañuy lekk lu yàgg de bàyyi la message bi xam nga lu muy firnde dama yaakaar balaa nga lekk alalu nit danga ko war a laaj bu pare parce que xel nanguwul nga may lekk te naan bu la neexul mën ngaa mën ngaa mën nga ne bokkutoo foo kay balaa nit yi ci bokk day wax bokk naa pare xaw ma ndax yi ngi may déglu gis nga suñu téléphone yi seetlu yow mi jënd crédit da ngay jik bisaag sa crédit daal wàññeeku mais te pose la question mais man affaire bi dafa gaaw fekk ñoom fa nga fa nga abone ñoom dañ lay lekkaale ci suuf te yow doo yëg ni ñu lay lekk beneen bi nga xam ne moo gën a facile pour ñëpp daal di koy comprendre ñu ngi ci weeru koor demal ci télé yi ay oustaz nga fay fekk ñu ne ah lii de ñu ngi koy def ci télé bi mu suukurum koor waaye ku ko bëgg wooteel waaw bu fekkente ne maax moo la tax a jóg lan moo tax jëloo 77 waaye da ngaa jël 88 cerveau vocal la yow doo perte maanaam dama lay damay joxe tuuti waaye ñoom ñu koy def am na lu ëpp loolu parce que bu dee 88 628 33 36 bu rajo Jammala FM exemple léegi ma ne suukar koor gaa ngi nii. teg nañu kaamil képp ku bëgg boo wootee rek nga daal di jël amul ay question de boo wootee rek bàyyi daaw da bu duggee di woote serveur vocal am am na yoo xam ne dañ koy calculer ba mu 400 francs la waaw léegi Sénégal ni mu toll actuellement ñu naan ci 17 millions d' habitants léegi ñi woote ñëpp